نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضاني هذه سنتي فرضا لله تعالى ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di euh, nuyu bu baax am mbégte lool ànd ak yéen ñu ngi fi nga xam ne moom mooy euh, Medina Baye kawlak ñëw seet si jëmm ju tedd jëmm ju sell jëmm ju bëgg lool Cheikhul Khadim ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax ci gàmmu gi nga xam ne euh, lañu nekk kilifa gi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar bàyyi laat nga nuyoog internautes yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan à travers le monde ci bés bi nga xam ne tey mooy mawludu nabi. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa yonent bi nga xam ne moom moo tax ñu daje fii jaarale ko ci buntoog xalifaam soppeem Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass moom mi doon wax ne maa ngi ndokkeel sama bopp ci terog weer ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam oo jaam yëpp ne ñëw leen ànd ak man ci ndokkeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci ndokkeel seen bopp ci koo xam ne Euh, lépp lu ñu yàlla may ci mbaax ci kaw suuf ci buntam la ko jaaral bon àbb naa baytam boobu rek wax maa ngi ndokkeel journaliste yi toog ànd ak ñun maa ngi ndokkeel it euh, kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi ndokkeel itam kilifa aada yi di ñaan yàlla ci barkeeg yonent bi yal yàlla barkeel Sénégal ci barke weer wi ñu nekk jërëjëf kilifa gi Cheikh Ousmane Faye alors euh, li ñuy tàmbali nag waxtaan bi moom mooy ci Mawlidu Nabi la ñu nekk ñu bëggoon xam tuuti rek wala nga wax ñu tuuti ci ki nga xam ne moom la ñu fekk si di Maulana Cheikh Ibrahim ñëpp xam ne ne ci doomam nga nga nga foofu itam bëggoon nañ nga taxaw fa tuuti euh, wax ñu jëmm joojee nga xam ne moom la euh, wan leeg bàyyi mooy kan ci yoon bi. alhamdulilah Maulana Cheikh Ibrahim mënoon nañu wax ne rek copier la. bu yàlla copié ci jëmm yonent bi sallallahu alayhi te moom moo ko waxal boppam moo ne su ngeen ma fotoon foto yonent bi dem la bu génnee foto yi mu ne benn jëmm rek ngeen di gis ñu ne ko lu tax mu ne wa zal abdu fanin fa laysa fihi baqiyatan ndax jaam laa boo xam ne damaa jeex takk ci yonent bi ba dara desutut ba yonent bi bu taxawee ma taxaw su toogee ma toog lum mu digle ci lay nekk isa saara xayru naas surtout waraahu wa in xalla yowman fal machiru baidu bon Cheikh Ibrahim ak yonent bi euh, mën nañu ne rek ki ngay magal te boo koy magal di xool kooku yaa ngi koy baneexoo ci xam-xam bi mu ci yonent bi ci wilaya ci oote ci tabe ci mbaax mën nañ ne lépp luy ut ci bi am na lu bari li yàlla may Cheikh Ibrahim ba mu des rek yàllaa ko yónni ndax yàlla yónni wut Cheikh Ibrahim waaye wàlliw la ci wàlliw yi yàlla tànnal yonent bi sallallahu alayhi man sallam mën nañu itam Baay Ñas mooy ootekat bi gën a yaatu làng ci lislam mboolem ñi woote ci lislam tey ñu uyu si leen yàlla baaxee na moo ci ëppale mbooloo ga ko uyu ci dundam ay millions uyu nañ ko gannaawam ay réew réew uyu nañ ko ban kooku bu ootee nañu ñëw màggal yonent bi dëgg-dëgg jullit war nañoo ñëw màggal yonent googu nag dafa nekk lu màgg lu rëy ndax borom bi subhanahu wa taala moo ko njëkkee yàlla moo ne wa ama bi nicmati rabbika fa haddis xiiwal bi la yàlla jox dee koy waxtaane may laa juliti addina ayu nicmatin adam min wujudi saydil wujud ban xiiwal moo gën a màgg ci am ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax su ma gisee ñiy jéem dama yaakaar ne ñoom dañoo fatti wax ju rëy googu xam ne yàlla wax na ko yàlla itam ci magal yonent bi ak kaweg yonent bi def na dara yàlla du natt azaka yàlla du dem aji makka yàlla du woor weeru koor waaye yàlla wax na man yàlla ak sumay malaika ñu ngi nii ji julli ci yonent bi alayhi wa sallam te mosuñoo pare mu teg ci yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ee eh, yéen ñi gëm alquran gëm yàlla julli leen ci yonent bi man nañ ne oote googu rek mooy gàmmu ndax gàmmu julli ci yonent bi la gàmmu tereel gan la gàmmu taaruf la xamante la gàmmu siiwal yonent bi la benn borom xam-xam dafa ne doyoon na rek nit ñi di gàmmu pour jullit ñëpp àndandoo ci benn bés na tey dañuy magal yonent bi ke xamutoon yonent bi di gis waa kan mooy ki tax ñëpp bàyyi seen liggéey bàyyi tëj seen kër di rëy ay nag di dajaloo kooku mooy kan mu ne dañ ciy xamee yonent bi te ku xam yonent bi xam yàlla ku xam yonent bi bëgg yàlla waxul in kuntum tuhibbuna allah fa tabiuni yuhbibkumullah su fekkee bëgg ngeen yàlla bëgg leen sax topp leen yonent bi yàlla ci la leen di bëggee man moo tax ma ne kooku ñuy magal di seydil wujud ñu ngi ñaan yàlla tax su ci barkeem kilifa voilà euh, dafa am fu ma bëggoon ñu taxaw tuuti bu ñu ne bàyyi mooy yonent bi ñu bari ñi nga xam ne comprendre ñu dañuy laajte nan ana Serigne Touba ñi naan Seydil Hadji Malick Sy ak leneen ak leneen bëgg nañ foofu tuuti rek nga taxaw fa wax ñu itam Medina Kaolack la ñuy wax wala Medina Baye Medina bi fan la jóge jógee. alhamdulilah Baye buñ ne Baye yonent Baye doon na yonent rek lañ bëgg wax yonent bi moo wax ci lamiñam al ulama warasatul anbiya borom xam yii. ñoo donn yonent yi ndonn googu la ñuy wax dafa mel ni tey boo paree benn site teg waxtaan bi dina am ku nekk France di ko seetaan ki nekk amerique di ko seetaan kii nekk senegal di ko seetaan te kenn nit ki la ñuy seetaan ci benn sit internet dañ koy seetaan te junne junne nit ñoo koy seetaan nit bu mënee def feeñuwaay googu mais lu tax yàlla mënta def yonent bi sallallahu alayhi wa mën a feeñ ci ay jëm yu bari te moo ko waxal boppam toog naa ko Omar ibnul Xataab ne ko atadri man ana ndax xaw nga man maay kan Omar ne ko wallaahu wa rasuluhu aalam yàlla ak yonent bi ñoo xam mu ne ana awlu man xalaqa allah min nuurihi wa min nuuri xalaqa man maay ki yàlla njëkk a bind ci suma leer waaye ci sama leer googu ci la yàlla bindee lépp bon Baye Niass fan la ko yàlla bindee ci yonent bi boo jëlee ndox sëñ Touba mos na ko misaal ne da ngay boo bëggee xam man ak yàlla da ngay jël ndox nga seeyal suukar nga seeyal ko ci ndox soo demee doo gisa ci suukar te yaa ngi gis ndox noonu la kilifa yëpp mel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne yonent bi gadaay na mu gadaay dàq nañ yonent bi ci kër baayam bàyyi ñu dàq ko ci kër baayam ci la ñuy ñëw mooy waral Medina gadaay googu moo ari Madina Madina la tudd bi xubbi rasulillahi taalu madinati dama ne nag ci bëgg yonent la yàlla di kawelee sama Madina gi mais noonu ñoo andi woon mari baay bàyyi mer na lañ doon mer na baay ba am na ba tey ñi wax mere na bàyyi waaye tuddul noonu madina bàyyi la tudd mu ngi ko tuddee madina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 1930 jàpp 29 30 ci la bàyyi toog ba maqaama gii di faydu feeñ ci moom mu oote bi mu ootee ci tam ci gàttal histoire bi nit ñi mënuñoo dégg li bàyyi bëgg a wax ndaw la ci kanami ay magam oote na maqaama goo xam ne Cheikh Tidiane keroog bu muy génne àddina la ne dina ñëw suma gannaaw koo xam ne bu ñëwee ci jamono bu xat mbooloo di mbooloo di ko topp kooku su ñëwee mooy nekk sama xalifa waa Mauritanie toog di ko xaar waa Sénégal toog di ko xaar yàlla feeñal ko ci ko am fanweeri at du neex a dëgg loolu moo waraloon jafe-jafe am ba Baye Niass gadaay ci bésu Korité tombeeg suma sëriñ bi nga ma laaj Cheikh Ahmed bés boobu lañ ko tudd mënuñ ko boot ci layital lañ ko def bi mu ñëwee ba fi ñuy wax jalan mooy fi daral bi nekk fa la bàyyi julee korité ba mu julee ba pare benn góor gu tudd maam Jawara Gay ñi de ne Njawar Gay ne ko li dalee fii ba mbadaxuñ sama suuf la tanal fu la neex nga dëkk ci la dox ba Madina fi mu nekk yàlla tanal ko foofu mu sanc Madina Baay bon Madina ñu ngi ko tibbee ci Madina yonent bi Merina noonu yi ñoo ko doon waxee tuddul Merina Madina la tudd Madina la tudd kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahim Cheikh Ahmed nag man mooy sama buntu ci baay mooy ñaareelu doomam ci doom yu góor gi xam mooy ñaareelu xalifaam ci ay doomam ndax Baye Niass def na sunu goo xam ne yaakaar naa ci wàllu yu nekk fii ñi ko def bariwul mooy bi muy génne àddina doomam nekkul xalifa taalibeem la samp muy xalifa muy Seydi Ali Cissé mi jur maa Cissé ak Cheikh Cissé ak imaam assan gannaawam la doomam Alxaaji Abdallah nekk xalifa gannaawam la Cheikh Ahmed Daam mi suma sëriñ nekk xalifaam nekkoon sëriñ bu maandu Cheikh Ahmed nekkoon ku noppi nekkoon ku lewet nekkoon koo xam ne kenn du jëw ci kanamam dama ne leçon boobu ñëpp ko war boo ñëwoon ci moom ne ko diw nee na mu jël téléphone mu ne diw nee na am wax ko ko kooku doo jëwaati mu ngi lay jàngal bul jëw nekkoon nit ku suufeel boppam ak maqaama yi ko yàlla may yëpp boo ñëwoon fekk ko ci buntu gërëm mu lal sa jaar ko ñëw fekk ko foofu kooku nit ku baax la ñu ngi ñaan yàlla taasu ci barkeem ndax moo ñu fekk ñun ci lëndëm ñu ci leer ci moom lañ bëggee Baay ci moom lañ bëggee yonent ci moom lañ bëggee Cheikhu Tidiane yàlla nañu yàlla taas ci barkeem sang bi نويت صوم غد عن وظليل